بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جليت نيونغني نيب دي أم بكتك كنت أنت دي دسواتك أنت موطأ إمام مالك رحمة الله عليه imaam malik boobu nga xamante ni bii ñoo ngi ci nettali ay jaar-jaaram asna alayhi nnaas wal alaamu wa kulluhum qaalu huwa al imaamu ñëpp tagg nañ ko ñëpp nee nañ ko yaay imaam ba ah tey nag wala boog jotaay bale passé ñu gisoon ñaari ndongo ci ndongo mi nga xamante ni bii yu siiw siiw lañu ka ca njëkk moo di abdullahi ibnul mubaarak mu siiwoon lool moom abdullahi moomu ci jaamu yàlla ak xam-xam ak mbaax ak tabe waaye tamit yar ak teggin ñaareelu ki nga xamante ni bi gis nañ ko ci jotaay bale passé moo di imaamu shafii ci xam-xam baak li nga xamante ni bi moo di bàyyi xel ga ku nekk la nga man place ba nga man mu teg la fa loolu sax mën naa am mooy tolloog suñ jamono ji ci wàllu médecine kii jàng lu jëm ci wàllu nopp kii li muy faj moo di bëñ kii li muy faj moo di bët moo de ñoom ñëpp lii di médecine la ñuy def mu di wàllu faj waaye ku nekk ak sam njàng fa nga ko ja fa nga ko jëme matière ba nga xamante ni bii moom nga gën a xereñe moo tax sax boo ñëwee ci suñ jamono ji léegi université yi gis nañ ko léegi faculté bi jàngale nangam bii di jàngale nangam bii di ñàngale ñàngam bii addis lay jàngale bii fiq bii taarix noonu rek kon mën na am yu mel noonu fa la ko nit ñi inspiré woo foofu lañ ko jëlee tey nag jotaay bi incha allah daañu jàngat ñaari kàngam yoo xam ni duñu nongee imaam Malik rek yem ci de waaye képp koo xam ne jàng nga madhab bi te yeggagoo ci biographie ñaar ñii xamagoo leen xamagoo seen wàccuwaay ci ngéer mi ah sewoon nga jàngiwaat ngéeru imaam Malik xam ni yow dese nga lu bari ci xam ngéer mi ndax ñaar ñooñu kat téere bi gën a rey ci ngéeru imaam Malik ñoom ñoo fa ñetteel kii di imaam Malik soo ne imaam Malik ñoom ñaar rek nga fay tudd téere ba jeex ñoom ñett daal seeni wax moom la téere boobu def waxu keneen nekku fa ah ñooñu moo di kan ak kan ka ca njëkk moo di abdullahi ibnu wahb ibnu muslim ak ibnu alqasim mooy ñaareel ba kon ñaar ñooñu lañ bëgg a jàngat ci jotaayu tey bii ñooñu nekk ñoo xam ne nag li ñuy peese rëy na lool ci ngir mi rëy na lool abdullahi ibnu wahb ibnu muslim nag moo di cheikhul islam imaamu dahabi nee na kaana min awiyati al ilmi wa min kunuuzi al amal nee na géej la woon ci xam-xam waaye tamit jëfekat bu mag la maanaam kuy jëfe xam-xamam la nee na boo bëggee xool daal géej ci xam-xam ak jëfe ibnu wax bin doy na la nga jël ci lii di misaal ak repère ah abdullah ibnu wax bi nag jële na ci imaam malik sëriñ la ci moom jële na ci allays ibnu saad sëriñ la ci moom ibn abi zaym ci sëriñ yàlla bokk sufyaan yi ñaar sufyaan yi sufyaan thawri ak sufyaan ibn uyayna ñoo ñëpp sëriñ lañ ci kii di abdullah ibn wahb waaye kii di imaamu layth ak imaam malik ñooñu moom sëriñu ibn wahb lañ waaye tamit jële nañ ci moom xam-xam de imaam malik mas na toog ci jotaay ñu laaj ko kuy jàpp ba yegg ci say baaraami tànk ndax danga koy taxliil maanaam jaarale ndox mi ci bi diggante baaraam yi ndax loolu war na la ah imaam Malik ni loolu dama gisul ni lu war la bokkul ci lim xam ibnu wax bu nee na ba demee ba jataay ba oyof nee na ma ñëw ni ko ah man de loolu gis naa ci hadis bu wér boo xam ni kii di allayt ibnu saad ak amr ibnu alxaaris ñoo ma ko nettali tudd ak càllalem ba ca uqbat ibni amir ni ko saa sallam moo ko waxoon ni ko ida tawaddata xallil asaabi'a rijlayka xallil asaabi'a rijlayka mun ko saa yoo jàppate yow Uqbata bni Amir saa sallam moo wax ak moom ne ko lii di sa baaraami tànk na nga ko tax lii na nga ko xàjjatle na nga fexe ba ndox mi jaar ca diggante ya ibnu Wahb nee na imaam Malik ni moom day addis bi moo ngi koy door dégg tey loolu la wax loolu la ko wax de ni ko addis bii daal maa ngi koy door dégg tey nee na bañ jógee ci jataay ba nag ku ko laajati ci masala bi mun la baaraam tànk des koy taxliil daal di lay wax addis bii ma ko waxal kon imaam Malik jëlee na ci ndongom loolu du ibnu Wahb loolu nag nekk lu bari lu muy am ci seen jamono yooya surtout nag ku toll ni imaam Malik ak la muy beeseeg wàccuwaayam ak xam-xam bu yaatu ba waaye nag loo bari bari xam-xam nag ah dina am loo xam ne dana la rëy ci xam-xam wa ma utitum min al ilmi illa qalila loolu suñu borom yàlla wax ci alquran kon ibnu Wahb moo ngi noonu imaam Malik jëlee na ci moom addis boobu nettali bii nag lim ñuy jàngal moo di ndekete bari ay sëriñ ci xam-xam bari buntu yoo peeg ci xam-xam baax na de ndax bis dana jot nga soxla ko moo tax imaamu Zahabi ba mu nettalee nett yu mel nii ba pare mu ne kultu mu ne moo ngi wax ne waaw ibnu Wahb moom nu muy def ba du nekk géej ci xam-xam koo xam ni xam-xamu imaam Malik ak Layth ak Amr ibn al-Harith yépp yaa ngi ko jël toog ca yépp jekku nga ko yépp say xam-xam la léegi ak ñeneen sax ci yeneen sëriñ nee na noo def nii rek nga mën a mel ibnu wax ba nee na laqiitu mu ni man de daje naag trois cent soixante ci ay sëriñ juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci ay sëriñ daal nee na daje na ma ak ñoom jël jël ci ñoom xam-xam comme la nga xamante ni bii mooy nombre yàlla ya nekkoon ca Kaaba ga ñetti téeméeri juróom benn fukk nee na daje naag ñoom ci ay borom xam-xam waaye su du woon Malik ak Layth la dolaltu nee na bu du woon imaam Malik ak Layth ibnu Saad de kon ma kon ma sànku de kon ma réer de kon ndekete mbir mi am na ci sëriñ si ñoo xam ne jar nañoo tànn jox leen sa waxtu lu baree bari teg leen fu kawe di leen bàyyi xel ndax ñoom kat léeg-léeg ñu génn la ci foo xam ne sa sëriñ si buñ dajale woon ñoom ñëpp duñ la ci mën a génne imaam ibnu Wahb nee na ñetti téeméer a ngi nii ak juróom-benn fukk ci ay sëriñ yoo xam ne jël naa ci ñoom ñëpp jariñ nañ ma jariñ nañ ma nag waaye kii di imaam Malik Layth bu du woon ak ñoom ñaar ma réer kon ma sànku de kon nit ki nay tànn boroom xam-xam yi ña ko te gën a jariñ mu takkook ñoom di leen diglu ak di topp seen mbir Abu Tahir nee na ibnu Wahb daal jàngi na ca imaam Malik laata ibnul Qasim di ñëw fukki at dem na ca imaam Malik fukki at yu topp te ibnul Qasim laxasagut pour jàng si kon ibnu Wahb ndekete yow moo jëkk ci imaam Malik moo jëkk a ñëw imaam fii ci Médine jàng si ci imaam Malik ginnaaw ga ci la ibnul Qasim ñëw Ashirazi nee na kii di ibnu Wahb taqoo naag imaam Malik di jàng ci moom ñaar fukki at te bu doon ñu ne ñaat la ñuy wax ñeenti at sax bari na léegi juróom benn at bari na ci génn ci xam-xam waaye kii di imaam ibnu Wahb day def na ñaar fukki at ci àll bi di jàng xam-xam bàyyi dëkkam bàyyi famem bàyyi alalam kon xam-xam deste yàgg lool danga ko jox sa lépp mu jox la tuuti soo ko joxul dara nag doo ci am dara kon suñ waxtu yi nañ fexe xam-xam di ci am wàllam abdullah ibnu wahb nag moo nekkoon faqihu misra imam malik loolu la daan bind waaw nee na nañ ko bindal lettre bu jëm ca faqihu misra ki gën a dégg fiq ca Égypte te loolu imam malik daw ko daw ko wax ci keneen de ci ibnu wahb rek la ko daan mos di wax bu ma saan di bind moo tax kii di abi musab nee na ñun buñ ma sànne ci midin ba masala bu mag ñëw ñu bëgg xam lu ca imam malik wax nee na ku nekk indi la nga xalaat mbir mi jaxasoo ñu ni waay waay bind leen bind leen ab leetar boo xam ne ca ibnu wahb la jëm ñu laaj ko lan mooy waxu imam malik ci masala bi nee na suñ ko bindee mu jox leen tontu la ca sens la leen di jox tontu la imaam Malik mas na gis ibnu Wahb mu nemmeeku ci melokaan wi nga ko gisee ne kii day ak ragal yàlla dugg na ko tey kii day fii mu toog ni yëg na fi yàlla ndax ñoom loolu daf daan feeñ ci ñoom léeg-léeg nga jàng bu aaya rek am ci koo xam ne dana ko fee bari fan imaam Maalik ba mu gisee loola mu ne kada yakunu ahlul ilmi mu ne boroom xam-xam nii lay mel nii la boroom xam-xam di war a mel ragal yàlla lool yëg ko yàlla am ci yow place am ci yow wàccuwaay moo tax Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu daana ko wax nag daana wax naan innama al ilmu al xashya mu ne xam-xam daal mooy ragal yàlla alquran nee na innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla ñoo ñooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi rek ñoo jaadu ci ñu ragal yàlla bu baax ndax ñoo ko xam ñoo ko xam abu zur'a ak muhammad ibni abdilhakam ak ibni bukayr ñoom ñépp ku ci nekk wax nga ni ibnu wahb day afqahu min ibni alqasim ibnu wahb daal moo gën a dégg fiq kii di ibni alqasim moo tax alxaaris wax na ni ibnu wahb daal dajale na lii di fiq dégg diine ak riwaaya di net li hadis ak ibada jaamu yàlla ñett yi daal nee na lu ci nekk ibnu wahb kàngam la ca dégg na diine lool mën na riwaaya hadis lool mën na jaamu yàlla lool bu mujj bi nag soo amee lépp te amoo ko daa mel ni li nga jàng jëriñu la dara jaamu yàlla li ngay jàng yépp lam la war a jural mooy nga mën a jaamu yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun suñ borom yàlla li tax mu bind la bind nit ak jinne nee na mooy ngir ñu jaamu ko ngir ñu weetal ko ibnu wax ba nag nee na man day tollan naa jamono joo xam ni gisoon naa ci man jikko joo xam ni neexuma mu di jëw ma bëgg ko faj ibnu wax bu noo ko doon faje nee na mu commencé di woor saa yu yëgee ni daal jëw na diw nee na mu woor benn fan nee na mu dem ba mu yàgg ma yëg ni daal koor gi taxul affaire bi faju ba tey maa ngi jëw nee na mu mujj ni su ma jëwatee dinaa saraxe lii di dërëm te seen jamono xaalis bu bari la woon nee na saa yi ma jëwee saraxeb dërëm mbir mi di wàññeeku may jëw di saraxeb dërëm ba mujj lii di jàngoroy jëw set ci man wicc iskay iskay moom day am na saafara soo xam ni xeet wi yépp ko soxla saafara soo xam ni képp ku dub jullit soxla nga ko mooy am bàkkaar bu rëy bu ne ci yow nga xam noo koy faje xam sa bàkkaar day baax na lool waaye xam noo koy faje moo ëppati moo gën a tee baax ëppati importance ibnu wax bi nag moom loolu la ko sun borom yàlla may ci bunt bii aka ñu koo soxla ñun ñëpp ibnu wax bi nag ba ñu bëggee mu nekk qaadi misra nekk juge bi attekat bi ñun ko yow daal fal na ne nga nekk attekat bi waaw ba mu yëgee loola dafa daw tey bu doon ñu na ñu ni falate nañ ma de say mbokk di feetewu nit ñi buñ la rombee di la ndokkeel ci pal giñ la pal tey ñun de moom ñoo ngi noonu seen jamono tey jamono lu ne moo ñu koy won de ibnu wahbu la ñuy wax de nee noon bañ ko falee mu nekk qaadi yi attekat bi ne ko yow yaa gis bi nee nañ mu dal di daw jëli bagaasam daw atum yàlla ak weer yu bari mu dem ci xarmatul xarmalatu ibnu yaxya toog foofa ndax bëggul a nekk alqaadi yi bëggul ñu fal ko ñun bu dee ñu ne dañuy xëccoo pal ga ibnu wax bi nag génn na àdduna ci cent quatre-vingt-dix-sept ñii ni cent quatre-vingt-dix waaye cent quatre-vingt-dix-sept mooy li gën a wér kon kooku moo di abdullah ibnu wahb xam naa ñu taxaw foofu insha allahu yeggale tarjama ibnu alqasim ci jotaay bi di ñëw wassalaamu aleykum bismillahi arrahmani arrahim kon jotaay bi benn jotaay la rek waaye dañoo tàqatle audio yi ndax ragal mu gudd li passé ñoo ci waxtaane kii di abdullah ibnu wahb lii di ñëw nag jotaay bi ñoo ci waxtaane abdurahman ibni alqasim ibni xaalid nga xamante ni bii mooy kàngamu ngeeru imam malik kenn mënta tudd ngeer mi tamit te waxoo ibn al qasim rawatina fii di afrique rawatina dongo yi ñëw ci gannaawam ak fañ ko teg kon ibn al qasim moo di aalimu diyaari l misriya wa muftiha imaamu dahabi noonu la ko waxee nee na Égypte seen borom xam-xam a ngoog de kooku noonu mooy borom xam-xam ba dëkk ca Égypte mooy seen mufti ki leen di ubbee ci diine kii def fatwa mu kontine mu ni wa kaana daa maalin wa dunya nee na moom ibnul qasim day suñ borom yàlla joxoon na ko alal sedde woon na ko tamit lii di àdduna fa anfaqaha fi l ilmi nee na mu dépensé loola lépp ci xam-xam sàkku xam-xam wuti xam-xam taatani xam-xam dëddu àdduna ak alal ja dëgmal xam-xam kooku mooy abdurahman ibn al qasim nga xamante ni bii cosaanam moo di Sham fi nga xamante ni bii moo di Syrie ñii ni Palestine Palestine fi ñuy wax Palestine léegi foofu la gane àdduna dëkk bu ñuy wax Ramallah comme nuñ koy waxee ñoom léegi te ci téere ñu ko tudde ar Ramla moom nag Égypte lu mujjee dëkk foofu moo nekk réew mi nga xamante ni bii foofu la mujjee dunde ba foofu foofu la faatoo foofu lañ ko denc laaj nan imaam Malik diggante ñaari ndongoom yi di ibnu wahb kan njëkk a waxtaane sànq ki ñu doon waxtaane sànq ak ibnul qasim ñoom ñaar bu leen di tappal ay médaille ku nekk ban médaille la la tappal ku nekk ban casquette la la jox ñu déglu imam malik mu ni ibnu wahb day aalim boroom xam-xam la de boroom xam-xam la de ndax jotaay bu la paase ñu waxtaane ci ibnu wahb waxoon nañ ne imaam malik jële na ci moom masala riwaaye ci moom xadiis kon kooku imaam malik werantewul bar ak xam-xamam ak jekkoom lii di xam-xam nee na waaye nag ibnul qasim faqih boo dee fiq rek nga bëgg nee na ah ibnul qasim nag moom kooku mooy faqih bi kooku mooy ki dégg ci diine kii di imaam ashab bokk ci ndongay imam malik nga xamante ni bii ci école bi la bokk bokk ci ñi siiw lool sax nag nee na ibnul qasim daal ak ibnu wahb soo bëggee xam seen différence ci fiq diglul ma wax la nee na boo daggoon tànkob ibnul qasim dem gam-gam leekook ibnu wahbin da nga fekk ibnul qasim tànk ba sax moo gën a dégg fiq ibnu wahb wax jooju nag mel na ni xaw naa metti la gën a yomb rek mooy ñu jàpp ca la imaam Malik wax te wax ni kii di ibnu wahbin boroom xam-xam la ibnul qasim faqih la ku dégg diine waaye ñun niti jamono luñ ciy déggee ñun mooy ñaar ñëpp ay kàngam lañ nag ñaar ñëpp ay boroomi xam-xam ñaar ñëpp ci fuqahaa yi lañ bokk cey su leen suñu jamono amoon ñu wax leen cheikhul islam wax leen faqihul milla waaw waaw ñoom day ñooy kàngam yi ñooy ponkal yi moo tax sax boo demee ci imam dahabi genre kàddu yi mel noonu da koy utiliser ñu mel nii kon ñoom jamono ja doon dund moo tax rek ñuy wax loola waaye ñii ku leen andiwoon ci suñ jamono ji téeméeri loxo lañ leen di jàppee ndax lañ gàddu ci xam-xam ku ci nekk mat nga sëkk mat nga sëkk la nga doon ci xam-xam imaam an-Nasaa'i nee na lii di Muwatta imaam Malik daal ñi ko riwaaya nee na kenn gën cee baax la ibnul Qasim riwaayam baax na de te wér te set tam wattu ko nag waaye nee na boo demee ci ñii di ndongo imaam Malik daal man kenn gënaluma ci ibnul Qasim imaam Nasaayi moo wax loolu de te imaam Nasaayi ñëpp xam nañ ko ci mbirum hadiis nga xamante ni bii balaa muy wax diw ku baax la diw ku ñuy jël ci moom xam-xam la ah dana ko seetaat de du ko wax noonu di ko maye de fu mu koy waxee rek xamal ni kooka ku ko yeyoo la léeg-léeg nga yeyoo ko sax te du la ko jox nag alqaadi Iyaad nee na dikru ibtidaai talabi nee na bunt bi li mu fiy jàngale moo di kii di al imam ibn al qasim naka la def ba jàng xam-xam fan la jaar ay jaar-jaaram ci jàng xam-xam xam nga loolu dafa am solo nit ki di ko xam ñoom ak xam-xam am na solo nit ki di ko ubbi di ca yër soxnoon moo ngi net li nee na ibnu alqasim moo wax ni maa xarajtu ila malikin ila illa wa ana aalimun bi qawli nee na man day laxasuma génn ma da jàngi jëm ca imam malik lu dul ne fekk na xam naa ay waxam xam naa am bindam jàng naa ay téeréem kooku moo di ibnul qasim kon ibnul qasim lan lay wuti midin comme que xam na téere imam malik jàng na ko xami waxam lu mu fay wuti jar na laaj de loolu dafa nekk loo xam ni suñ jamono ji daanaka commencé ne di tumuranke te moo di lan dem tukki ci borom xam-xam ngir jël ca moom la téere yee dul bind am na de am na loo xam ne borom xam-xam am na ko léeg-léeg téere du ko bind moo tax imam malik bañ ko yebalee ni ko jàngil luñ ko wax demal ca rabia fata fa taallam min adabi qabla ilmi jëlal ca yar yaag teggin ga ibnul barak nee na jàng naa lii di ab yar fanweeri at door a jàngi xam-xam ñaar fukki at kon loola la ñuy wuti ci borom xam-xam ñoom donte xam-xam ba ca la bokk nag waaye yi nga xamante ni bii doo ko gis ci téere ak amu leen di ñor kon loolu bokk na ci li tax ñoom ñu daan tukki tukki yu metti di dem ci borom xam-xam yu mag a mag te sori lool fañ dëkk ñoom ibnul qasim nag yàlla may na ko loo xam ni ku jàng tarjama lii di ndongay imam malik da nga yéemu ibnul qasim nu ko suñ borom yàlla berale loxo jataay yi repassé waxoon nañ ni am na ñu daan ñëw ci imam malik di ko wax ni beral ñu jataay mu ni mukk wutal ma darsu boo xam ne menn man la mun mukk fexeel ba jagleel ma ci journée bi loo xam ni danaa man di beroog yow mu ni mukk yooyu yëpp imam malik daw ko nangu ndax ibnul qasim moom amu ko woon ah kay fexewoon na ba am ko fexewoon na ba am ci imam malik waxtu woo xam ni dana fexe ba wéet ak moom laaj ko ay masail laaj ko ci diina ay laaj bind ko wattu ko te ibnul qasim ca pastéef ga ak farlu ga ca bëgg xam-xam ibnul qasim nee na man de daana dem ci imam malik di fa wuti xam-xam di ko laaj ay laaj yoo xam ne ci diina la jëm ban heure nga daan dem mu ni njël gu njëkk njël gu njëkk mu fëkk ay dàllam gàddu yi bagaasam dem ca buntu këru imam malik ca sedd ba ca lëndëm course ga di ko toog fa di ko xaar toog fa di ko xaar nee na bu génnee rek ma laaj ko benn masala ñaar ñett ba ñeent laata mu yegg jàkka ja doy loo loolu nag saa yu génnee dem ca piliyaan ba fa muy jàngalee ca jataay ba ëttu jàngu ba ma ñëw toog ànd ak gaañi cey ibnul qasim xam-xam ñoroon na ko de lool moom génnul sax lu dul sàkku ji xam-xam kese génn lu dul dem taqoog imam malik moo tax ibnu wahb kàngam moom nga xamante ni bii moom lañ koy tëkkaleel ci ngeeru imam malik seede na ci moom seede boo xam ne ku déglu li xam ne ah seede boobu mooy dëgg nee na boo leen bëggee fiq boo leen bëggee wax imam malik waaye def leen ci ibnul qasim ndax ibnul qasim day moom imam malik rek mooy sëriñam man nag sama genre gi moom dañoo bari sëriñ xam nga jotaay bale waxoon na ne am na ñetti téeméeri sëriñ ak juróom benn fukk moom moom moom ibnu wahab waaye ibnul qasim moom imam malik rek daanaka ci la yem ñim ci ñim ci ñim ci boole bariwut imam malik daal moo nekkoon soxlaam mu yem ca ibnul qasim nee na nag fajar fajar googu su ma doon ñëw damay fekk ni imam malik moo ngi nekk ci jàmmam kontaan fireeku su ko defee ma mën a taatan ci moom xam-xam bokk na ci waxam yi am njëriñi moom ibnul qasim nee na maa danna ahadun bil ilmi fa aflax nee na ku nay ci xam-xam doo ca jariñu xam-xam ku ko bëggul a tasaare nee na doo ca jariñu de ibnul qasim waxam jooju nu mu koy tekkee nuñ koy déggee mu ni ndaxte man de bu ma masaan dem ci jitaayu imam malik sama moroom yi ñu am ngànt ñëwuñu damay bind na ma daan bindee buñ ñëwee buñ ma laajee ma wax leen lépp lu imam malik waxoon démb nee na waaye man saye ma ngànt dabee ba ma ñëw di leen laaj imam malik lu mu jàngale woon démb nee na ñoom ñëpp dañuy bañ cey ñëpp dañuy bañ waaye gis nga suñ borom yàlla lam lam leen fayee ibnul qasim ma daan joxe xam-xam ba góosub droite dajoor ak càmmeñ mi ngi nii ñëpp di ko dégg àdduna ak penkook saw ñëpp xam nañ ko tey waaye ñooña doon nayee joxe xam-xam àdd nañu seen xam-xam dem xabru kenn déggu leen kenn xamu leen moo tax loolu dafay dëggal la abu ishaq al ilbiri waxoon ca qasidaam ga mu ni xam-xam daala ngoog yaziidu bi kathrati al infaaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta nee na xam-xam mooy loo xam ni loo gën a joxe mu gën a bari boo ko téyee ñàkk ko xam-xam booy financé di joxe di génne nee na day gën di bari rek nee na waaye boo ko jéemee téyee ñàkk ko moo ngi mel ni ndox ku yor ndox ci sab loxo boo ngëbee tamit amoo dara day dem bàyyi la fa rek waaye xam-xam moom boo ko joxee mu bari kii di ibnul qasim nag rahimahullahu taala nee na jege nguur ak niti àdduna yi amul njariñ de nee na loolu amul njariñ loolu lu tax mu wax ko ca njëlbeenu dundam daf doon jige ñooñu di jaxasoog ñoom waaye ba mu demee ba jàngi xam-xam jaxasoog waa xam-xam bàyyi fee waa àdduna tuuti ba mu jógee lu mu wax kàddu gu rëy nee na daal jige buur ak nguuram amul njariñ jullit bi na koy moytu ndax ñoom lañ bëgg rek mooy jël sa diine ji siime ko seen àdduna ji dem seen yoon tey loolu loolu nag ibnul qasim waxu ko waaye man maa ko waxee noonu ibnul qasim moom la mu wax mooy jige buur ak nguur amul njariñ loolu rek fa la wax jeeyam ma wax ne ñoom de dañuy jël seen sa diine ji siima ko seen àdduna dem seen yoon loolu nag am nañu bari ñu ko waxee noonu ibnul qasim kan la génn àdduna mu ngi génn àdduna ci Égypte guddi àjjuma ci juróom-ñeenti fan ci weeru safar 191 wala 192 ci gàddaay gi ci gàddaay gi amee téeméer at ak juróom-ñeent fukk ak benn wala juróom-ñeent fukk ak ñaar ginnaaw bu mu demoon màkka ñibbisi ba mu ñibbisee nag ñetti fan la def ca Égypte dal di faatu génn àdduna amoon na juróom benn fukki at moom Ibnul Qasim kon xam naa dañuy doy la loolu ba jotaay bi di ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah